yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul lu toll ci juróom benn fukki tani ceeb ak fukki junney litre diwlin ñu xayma ko ci ñeen fukki million ak juróom moom la fondation Senelec yëkkati tàbbal ko ci ndimbali Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides jagleel askan wi loru ci mbënn mi ci dëkk bu tedd bi di Touba délégation bu takku nag ñoo ñëwoon ci dibeer gi fii ci kër Serigne Touba gi fekk si kuréel gi di Junatun Liman Nazamaho yëkkati nag ndimmal loolu teg ko ci seeni yoxoo fondation moom foo ko déggee solidarité mooy moo moo ko tax a jóg dimbal dimbal ay nit ñoo xam ni moment bañ ko soxla ñun nag ñaanuñu yàlla euh, wuute bépp activité boo xam ni xalifa bi mi ngi koy def jëmale ko ci ndimbalu askanu tuuba wala askanu senegal ñu koy wuute ñaan ñu ko yàlla looloo tax bi mbir mi amee ñu kilifa Papa wax ñu ñu xalaat nan lañu ñu mën a taxawee ci wotu sëriñ bi pour euh, dimbali ko ci taxawaay boobu nga xam ni moom la war a am ci ñooñu nga xam ne ñoom la mënd mi euh, dal ñu xalaat ci ni faawu daal ñu dem fa am luñ fa yóbbu liñ fi indi nag euh, bari na bariwul waaye xayma bi mi ngi toll ci juróom benn fukki ton ci ceeb ak fukki junni liitaru dawlin boo ko xayma valeur ba ma ngay toll ci quarante cinq millions ñeent fukki millions ak juróom ñu xeeb ko lool euh, mais jàpp leen ni euh, ndimbal loolu fondation bi indi ànd ak délégation bu am solo bi directeur Senelec gi kenn desul ñëpp ngi fi dañ koy teg ci loxo yi sëñ bi ci turu suñu kilifa Papa bi Gaye waaye ci ci turu képp kuy liggéeyee Senelec kuréel gi di junatun liman nazamahu ginnaaw biñ dalalee fondation Senelec fii ci résidence Xaadim Rasoul ci kàddooy Serigne Youssou Diop mi doon wax ci turu mboolem kilifa yi mu ko seqal mu ngi leeralaat bu baax a baax délégation bi lee taxawaay bi nga xam ne ni moom la junatun am waaye itam di rafetlu nag jëf ji nga xam ne ni Senelec jëfaat na ko tàbbal ko ci ndigalal cheikh mun Muntaxa Mbàkke lile ci turu kuréel bii di junnatun li ma nazamaho ma seq ko kilifa yu tedd yi ñuy ñëw ci ay kàddu yoo xamante ne wax ci Senelec moom dafa mel ni foo gestu rek loo jëkk a daj mën nga ko tudd Senelec lay doon ndax bu ma jëloon rek seeni équipe opérationnelle yi nekk fii nit ñuy jàppale ci ci terrain bi ku ne xam na ne branchement yi ak wax inondation les risques sont immenses risques yi dafa bari ndax nit ñi niñ daan baaxoo def prise yaa ngi ci suuf euh, yenn risques yi da ngay jàkkaarloog moom te nit ñi mën na mi na leen waaye ñii boo gisee euh, yëfi risques yi euh, mu mel ni dañ ko teel a maîtriser ñoom ñi dañ ko ànd ñoom kon war nañ ko war nañ leen a sant ci seen disponibilité à tout moment loolu kon moom dama koy jiital ci kàddu yi li ma ciy tegit mooy sant leen ndax li ngeen fi indi lu fi bëri njëriñ la te itam li ngeen fi indi xeeb ngeen ko kon tey ji senelek bu amee euh, fondation mu ñëw ànd seeg ñun loolu conscience citoyenne la boo xamante ne ñu ngi leen ci sant di sant kilifa ga nga xam ne moo jiite euh, euh, Senelec te it ci turu kilifa yi nga xamante ne man dama yor seen kàddu rek waaye ñooy sama sëriñ damay damay dañ leen di jot li ne cantug sëñ Muntaxa lañ leen di jottali waaye cantug sëñ Muntaxa googu tamit day cantug sëriñ Tuubaa gu jëm si ci yéen di ñaan tamit fi ngeen bëgg a àggale liggéeyu lekk ba sénégalais yëpp gis ci seen bopp ba courant bi gën a yomb ci ñëpp <laughs> ñu ngi leen di ñaanal ñu ngi leen di ñaanal suñu borom defal leen ci lu kawe seen jot. li nag day daal di yokku rek ci taxawaay bi nga xam ne nii Senelec am na ko bi mbënn mi tàmbalee ci askan wi féete ci yenn ci ay gox ci dëkk bu tedd bi ginnaaw ànd guñ ànd ak équipe technique yi doon wàcc ci terrain bi xoolaat kaaraange gi aju ci wàllum courant bi fondation Senelec nag daal di ñëwaat yokk ci jëf ju am solo jilee kon lii mën nañu day firndeel rek ne senelek delloo na njukkal askanu Touba ginnaaw bi nga xamee ne dëkk bu sell bi di Touba bokk na ci bërëb yi nga xam ne nii liñ fi am ci ay client amuñu ko feneen